Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum rahim wabarakatuh. wa rahmatullahi wa nu ñëw ak ci sunu juróom-ñaareelu jotaay ci sunu bindu tazuru sagar di téereb serigne touba bi nga xamni da ci jangale ñetti xaji diine yi te moy al iman wal islam wal ihsan xam nga ni ñoo ci buntu bu bi te moy buntu al iman ñeel ben ga fi ñuy jangale ni ñuy gëmee yalla suñu borom tabaaraku taala indil lu ñaar fukki melo yoo xam ni yuñ war a gëm la ci yàlla suñu borom da koo amee tey ji nag mu fas yéene indi ñaar fukki melo yoo xam ni dafa jomb yàlla suñu borom te mooy safaanub ñaar fukki yooyee ñu waxoon kon ñaar fukki melokaan yooyee ñu waxoon di firndeel ak mat am nañ ay safaan muy ñaar fukki melo yoo xam ne dafay firndeel ak ñàkk mat ak matadi ñaar fukki melo yoy nak neena dafa jomb ci yalla suñu borom tabaraka taala nañ ko ko euh mo tax mu tàmbale ci wa annahu alayhi tastahilu bokoy bokoy firi nak da ngay wax wa annahu tastahilu alayhi jomb na ci mom mom yalla suñu borom tabaraka taala atadadu si sifati safani yi le melo melo yoy mo waxoon ci fal kon na ngeen ko ko jombalé melo yoy lay bëgg lim kon ñu xamni li muy lim ci kanam ay melo lañ yo xamni yépp dafa jomb yàlla suñu borom tabaraka wa ndax dafay firndeel dafay mandargaal ak matadi ak manki lay lay lay lay mandargaal ñoom melo yooyu yi ba te jiitu mooy aadamun ay li ma ci jublu ñàkk maa udus ànd ak ànd ko sosu mooy mooy euh, da nga ne woon yàlla suñu am na kon yàlla yàlla amut loolu dafa dafa dafa jomb sosu itam da nga newoon yalla suñu borom mo fi jitu te amul fu mu kon nga nan yalla fi la sosoo maanaam comme comme comme mbindee fi ñun niñ mel rek ñun xam ne kenn ku ci na amna fo soso diko wutal yalla loolu dafa jom ndax yalla da nga newoon mo fi jitu te amul fu mu jeexital manam da nga yalla suñu borom baqa mo fi dess te amul fu kon diko wutal fu muy yam manam fi la yam loolu dafa jom tamasulun yamu manam yamo nuroog dara Nuruk dara Nuruk ben mindef ndax danga nga ne woon yàlla suñu borom ku wuuteeg mbindeef yi la loo gis rek mbindeefum yàlla la te nuroo ceeg dara kon di ko wutal lu muy nurool loolu dafa jomb maa iftixaari yi ibtuna ànd ko aajowoo da nga ne yàlla suñu borom ku doyloo boppam la doyloo soxlaalu kenn dara kon aajowoo dara wala aajowoo lenn ci kenn loolu dafa jomb taxan dudul limu limu maanaam am jeneen yàlla jurul moom am benen wala yenen lolou dafa jom ndax ne war nga wahidun kenn la mom yalla suñu borom jenn yalla rek am te moy mom amul jenen amul kenen kuru amul jenen yalla wala yalla fe wala yalla fi. jenn yalla rek am te moy mom amul jenen motax li ta'addudun limu manam yenen yenen yalla lolou dafa jom di wut yenen yalla dafa lolou dafa jom kenn la kon loolu mooy uh, taxaddud jojju moy safanu wahid joojee mo waxoon sun lot lot manam néew doole ndax da nga newon suñ borom qudratun da ko ñeel maanaam katan dafa amé katan kon lotu ci manam néew doole lol da ko jomb karahatun sibel sibel moy def dara ci lu dul sa coobare lol dafa jomb yalla suñ borom ndax da nga newon yalla borom irada la lepp lu mi def ci namelam da koy def, ci bëgg bëggum la koy defee lepp lu am itam ci bëgg-bëggam la amé dara jik jik rek am wala dara am te neex ko dedet lu am rek mom la neex kon borom irada la kon karahatun dafa euh, manam sibel dafa jom yalla sun borom samam tax da nga non aji deg la mom yalla sun borom tabaraka taala kam nam yalla ci mom kon ak tax da ko jom rir, rer da nga non woon ilmun xam-xam da ko da ko amé mom yalla xamna na umpele wul dara wul dara kon rer da ko jom mom yalla moy jahlun wa maatun ak de ndax da nga non yalla sun borom ay hayatun aji dun la kon ak de da ko da ko jom dund la dund go xamni amul fum mu amul fum jam kon ak de da ko jom mom yalla suñu borom tabaraka taala aman ak gumba ak ngumba ak ngumba da ko jom ngir newon nga aji gis la mom yalla suñu borom kem nam yalla ca mom euh, kon ak ngumba da ko jom bak ma bakam and ak lu lu itam muma muma baña ñak mana wax lolou itam dafa jom yalla suñu borom tabaraka taala ngir mom yalla kalam da ko amé manam ak wax nak ay mbir lañ yoo xam ne ku nekk ci yow lay wooye ajis lay wooye das lay nii kon nee na yooyu yooyu nga xam ni ay melo lañ yoo xam ne day dafay firndeel ak ñàkk mat te mooy adamun xudus fana tamasulun iftixaar iftixaar ak e, taaddudun ajusun karahat samam jahlun mawtun ak aman ak bakkam ay melo lañ yoo xam dafay màndargaal ak ñàkk mat kum nekk ci yow nag la ñuy wooyee nii moo tax mu ne wa kawnuhu ak ku nekk aajisan di aji lot koo xam ne ak lot daa nekk ci yow yow la ñuy wooyee aajis aji lot ji kon loolu itam dafa jomb yàlla suñu borom tabaaraka wa taala aw asamma wala muy aji wala muy aji tëx ndegam ak tëx da ko jomb kon jomb na ñu di ko wooyee aji tëx ji aw kaaren wala aji sibeel Negam karahatun da doko doko doko jom mom yàlla sun borom kon jom na ci mom ñukoy woy al al euh, kariha al kariha al karahatu aw jahilan wala muy aji réer negam jahlun manam ak réer ci boppam dako dafa jom yàlla sun borom kon jom na ci mom mu don aji réer ji muy jahil aw ama wala muy aji gumba negam ak gumba ci boppam da ko jomboon moom yàlla borom tabaraka taala te ak gumba ko ko amee la ñuy wooye alama kon jomb na ci moom yàlla ñu di ko wooye alama ndax ak gumba ci boppam da ko jomb aw mayitan ndegam al mawtu mooy dee dafa jomboon yàlla suñu borom te dee ku ko def la ñuy wooye aji dee ji ndegam al mawtu ci boppam da ko kon jomb na ci moom ñu di ko wooye aji dee ji moom yàlla suñu borom tabaaraka wa taala subhaanahu soril naa ko lépp lu yellul ci moom aw ab kama wala muy aju lu ndegam al euh, bakkam ci boppam dafa jomb yàlla te bakkam maanaam luu kum ne ci yow la ñuy woowee al ab kama mm, kon jomb na ci yàlla suñu borom mu doon al ab kama zi yii yëpp mustaxilaat yu jomb lañu ala rabbi sama ci borom asamaan nee na yii mu lim fii yëpp daal ay mandarga yi manki la yoo xam ni dafa jomb ci yàlla suñu borom tabaaraka wa taala kon nanu ko ko jombale dafay tombeek fi ñu war a yëkkatee sunu jataay tey jii sunu yamukaay incha allah ba beneen yoon ñu mën a ñëw jeexal buntu boobu yi nga xam ne ci lay leerale ni nuy gëmee yàlla suñu borom tabaaraka wa taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu